allahumma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushuur assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu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 ñu ngi leen di fàttali waxu boroom xam-xam su mag bi nga xamante ne mooy xasanul basri rahimahullahu taala rahmatan waasia moo baaxee doomu aadama bi di la fàttali ni bés ya nga nekk di dund mooy bés yàlla fi tax a bàyyi ba tax na war nga war a mën a bàyyi sa xel ne bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne am na lu denc sa dund moo tax xasanul basri rahimahullahu nela la ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama zahaba yowma zahaba baaduk nee na yow doomu aadama bi xamal ne de bis yàlla fi tax a bis yàlla fi tax a bàyyi mooy bés yay jaar di jàll waaw sa nekkin bi fii sa existence si kaw suuf si mooy fan yaa ngi fi nekk di ko dund ba tax na moom de nee na mu ngi lay fàttali kullama yow yawmun zahaba baaduk bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne am na bés ba dañ ci sa dundu gën nga jege de waaw ba tax na danga nga war a sa xel noonu la beneen boroom xam-xam di abdullahi bun awn rahimahullahu ne la yow doomu aadama bi kaay ma wax la ana lan mooy tooke ana lan mooy poson waaye kaay ma wax la jàngoro joo xamante ne amaana mu ngi nekk ak yow te yegoo ko kaay ma bindal la ordonnance ma bindal la garab joo xamante ne boo ko jëlee feebar boobu dina wir te dinga nga tàqale kook moom kon abdullah ibn awn rahimahullah moom it daf ne zikru naas daawun nee na xamal ne di wax li ci nit ñi di wax melokaanu nit ñi di wax ayibu nit ñi di wax ci deru nit ñi nee na poson la waaw nee na tooke la poson jàngoro la feebar la waaye nag kaay ma jox la ana lan moo ko war a saafara kaay ma won ana ban garab moo ko war a mën a faj moo tax mu ne la wa zikrullahi dawaa waaw wa zikrullah dawaa nee na kaay ma wax la ana lan moo war a faj feebar bu mooy tudd yàlla ba ngay tudd yàlla loolu mooy médicament mooy comprimé boo xamante ne saa yoo ko commencé di utiliser di ko jëfandikoo rek léegi tey nga taxale ko feebar boobu nekk di tudd ayibu nit ñi di tudd ayibu nit ñi Abdullahi bun Awn nee na loolu feebar la tooke la poson la waaw jàngoro ya nit ñi di dundaale la waaye nee képp ku bëgg sori jàngoro jooju nga nar faj kaay ma wax la ana la koy faj saa yoo tàmbalee di tuddu yàlla rekk léegi tey nga tàqale ko jàngoro joo xamante ne mooy tudd ayibu nit ñi walla nga di tudd la nekk ci nit ñi walla la nit ñi walla nga di leen sosal di wax la ci nit ñi donte dëgg la nee loolu jàngoro la boo demee bay wax la nekkul ci nit ñi nag loolu yaa ngi leen di sosal te loolu mooy gëna a garaaw nga di wax la ci ñoom te muy dëgg la ci nit ñi nga di ko wax te mu doon lu dëgg ñu ne loolu jàngoro la waaw jàngoro la ngay wax jëmale ko ci nit ñi ca la ngay wax ci ñoom dara amul loolu sos la loolu moy poson loolu mooy poson kon ñaari xeetu feebar feebaru jàngoro ba nekk ci yow mooy ngay wax li nit ñi donte li ngay wax lu am la nee na loolu feebar la ngay wax li nit ñi te loolu ngay wax ci ñoom amul nee loolu sos te loolu mooy poson kaay ma jox la médicament bay saafara ñaari feebar yi ñaari danger yi kaay ma wax la ana moo koy saafara moo tax mu ne la wa zikrullahi dawaun di tudd yàlla nag loolu moy médicament bay saafara jàngoro jooju jàngoro di wax ci nit ñi jàngoro di sosal nit ñi poson di wax ci nit ñi lu amul di leen sosal di leen kereel di leen tuumal luulu poson la boo xamante ne yaa ngi koy installé ci sa biir xol waaw neena na nag kay ma jox la loo xamante ne mooy raxas poson boobu ci sa biir xol mooy lan mooy zikrullah booy tudd yàlla di xam la ngay tudd lu mu wundu maanaabi bi la muy tekki nee na loolu mooy la nga xamante ne mooy lay faj jàngoro jooju ba tax na bu ñu demee xool ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu dénkaane saxaaba bii di uqbata bun aamir radiyallahu anhu ndénkaane boo xamante ne man ak yéen keneen mboolem seen war nañoo jël ndénkaane yonent ba mu dénkaane sahaaba bi di uqbata bin amir la ko yonent bi dénk ñun ñépp war nañoo mànkoo jël ndénkaane boobu daal ko installé suñu dundu mu doon la ñuy jëfe mu doon la ñuy xool saasu ne ngir ndénkaane bi dafa am solo waaw yow mi ñu topp ci waxtaanu fajar fii ci Rewmi FM 97.5 ak man mi waxtaane ak mboolem auditeurs yi nañ leen bokk déglu la yonent bi dénk Uqbata bun Amir radiyallahu anhu an Uqbata bun Amir jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bi ñu naan Uqbata bun Amir radiyallahu anhu yal na ko buur Uqbata bun Amir nee qultu yaa rasuulallah bés dama ne yow mi yàlla yónni na jihaat ana lan mooy mucc xool yonent bi ne amsik alayka lisaanak na nga téyee sa wali yasaaka baytik na la sa dëkkuwaay doy yaatuwaay wabki ala xatiatik nanga toog di jooy say bàkkaar ak say rëcc-rëcc mbokk yi ñetti ndénkaane ya yonent bi dénkaane saxaaba bi di uqbata bun amir radiyallahu anhu jël ko nga moomale ko sa bopp naaka ma moomale ko sama bopp na ko gaay jël ñu moomale ko seen bopp kenn ku nekk ci askan bi na moomale wasiya bi boppam ndénkaane ba yonentu bi dénk sahaabi bi nag ku nekk ci ñun jël ndénkaane bi moomale ko boppam ñu xool ba xam dinañu mucc wala duñu mucc muccukaay yaa ngi fi seytaane laanatullahi alayhi moo ngi fi di diri nit ñi di leen wommat ji leen jële ci leeru yàlla yóbbu leen ci lëndemaay ba nga xamante ne fala farankulaayo ak gaayaami waaye mu di ko jaarale ci suñu bànneexu bakkan waaye képp ku di nootkat sa banneexu bakkan ba seytaane mënalu la lu bari bu demee ba mu di la ko defloo tamit na nga reconnaître sa ñaawteef yooyu nga daldi di tuub sàkku njéggal fa yàlla su ko defee buur yàlla dina la sutural dina la musal ci loraange boobu seytaane wommat la jëmale la ci ba tax na sahaabi bi di uqbata bun amir radiyallahu anhu moo qultu ya rasulallah yow mi yàlla yónni mal najaat ana lan muy mucc man de dama bëgg nga wax ma nu may def ba mucc waaye mucc ci jëmmam laa bëgg nga wax ma lu mu nekkee ana lan muy mucc jëmm la wala geste la wala comportement la ki bëgg xam la yenentu bi tontu uqbata bin amir radiyallahu anhu nag ñu topp ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi di jaar ci daara ji ñu fas yéene wéttalante ki la yonent bi tontu uqbata bun aamir narkaa wax lan mooy mucc xaal yonent bi daal di tontu uqbata bun aamir ne ko mucc boobu ngay laaj de mooy amsik aleyka lisaanak na nga téye sa làmmiñ na wax lu ne nanga nga bañ a lu ne nanga nga bañ wax lu ne la nga gis donte dëgg la sax waaye nootal sa banneexu bakken nga di ko waxtaane xanaa fii de du am walla du ñàkk mu am ki laaj ne waaw journaliste bi nag moom bi nga xamante ni lépp lu mu gis da koy wax ñu ne ko journaliste bi moom bokk ci ndax ñoom seen métier dafa am yoon bañu ñu xàlli ñu di ko tuddee éthique ak déontologie soxna mari bu fekkente ne nii la alhamdulillah bu dee du nii nag ndegem yaay sama professeur kon maa ngi jéggalu ci taaluwe nasaraan bi nañ ma jéggal ci baat bi kon ñoo ne journaliste bi seen liggéey dafa am yoon bañ leen xàllil ñu ne etik ak déontologie mooy la xamante ne fa lañuy jaar ba segg lañuy wax mu dewoon lu dëggu mu doon li nga xamante ne moo méngoo ak li am waaye képp ku jël làmmiñam boyal ko wàcc éthique ak déontologie boobu noonu méccam journaliste bi xàlli ne lii mooy seggukaay ba ñuy seggee information ya ñuy yeggee askan wi képp ku ko wàcc nag kon yow yaa ngi ci sànkute kon journaliste bu teg liggéeyam ci éthique ak déontologie ba méccim journaliste bi xalli ñu ne kooku du kuy boyal la meñam ndax kooku day wax li xew kooku day wax li am képp ku ko dégg boo demee vérifier ko da naan ah ñii di lañuy wax loolu mooy li am comme sama gaañu baax ñi nañ koy defee ci kër gi ak ci daara ji yal na yàlla fay kon liggéeyu journaliste ba teg liggéeyam ci éthique ak déontologie ñu ne kooku boyalut làmmiñam muy wax n'importe où wala n'importe quoi kooku bokk ci waaye keneen ku wàcc ci sart ba miccum journaliste bi teg éthique ak déontologie ñu ne kooku mooy kiy boyal làmmiñam muy wax la tax gaay di ko déglu walla muy wax la tax gaay di xemmem déglu la mu wax ñu ne moy mooy kii war a téye kon yonent bi nee na saxaabi bi ne nanga téye sa làmmiñ ngay bañ wax lu ne waaw nanga nga téye sa làmmiñ ngay bañ a wax lu ne booy demee bay wax tamit na nga wax li nga xamante ne képp ku ko dégg walla mu déglu ko day gis ne la ngay wax mooy li am loolu ñu jël bennu tegtal ba yonentu bi joxoñal uqbata bun amir radiyallahu anhu mooy amsik aleyka lisaanak na nga téye sa làmmiñ ngay baña wax lu ne bi yonent bi daldi di ko jox beneen ndénkaane bi nga xamante ne mooy deuxième bi mu ne ko woli yasaaka baytik ca dëkkuwaay nu mu tuuti tuuti na doy yaatuwaay na la sa dëkkuwaay doy ci yaatuwaay bul jël sa tànk namm ko di taxawaalu fu ne di dem fu ne fu ne nga taxawaalu foofe bu ko def ngir sa dëkkuwaay nga gis ni moo la dalaa bañ a doy yaatuwaay ngir dangaa gis ne sa dëkkuwaay dafa xat sa dëkkuwaay lu mu xat xat xat na doy ci yaatuwaay na nangoo toog sa dëkkuwaay booy dem bay génn nala farata génne na nga dégg nodd yàlla sala nga génn booy dem bay génn nanga gis ne diggante paate ak sàmba de dégg dañuy duuloo walla dañoo neexoowul dañoo juunoo ci gis-gis walla ci waxin wala ci melokaan ngi génn sol sa dal dem defar diggante boobu na la loolu tax a génn booy dem bay génn daal na farata tax a génnee bul génn ngir danga war a bëgg taxawaalu rekk taxawaalu bu mu doon sa mecc ci pénc bi bu dee loolu la na nga toog sa dëkkuwaay sa dëkkuwaay na la doy ci yaatuwaay garam place bi déedéet fu ne ne fa déedéet fu ne nga taxawaalu foofu déedéet yenentu bi neena luulu loolu boo ko defee doo mucc waaye bu dee sa dëkkuwaay doy na la ci yaatuwaay dinga mucc ndax bu dee sa dëkkuwaay nga opté ne foofu mooy doon sa grand place sa dëkkuwaay nga opté ne foofu mooy doon sa wéttalikukaay lay xew ci pénc bi dalay fekk sa dëkkuwaay kenn du la fa tudd kenn du la fa séen kenn du la fa taas waaye fu ne nga ne fa lu ne nga ne yaa ngi nii ah am na loo xamante ne ah bu xewee béréb donte nekkoo fa sax jamono bam doon xew du ñàkk am ñu ne moone diw sangam de da doon fréquenté bërëb boobu est-ce lii bam doon xew fekku ko fa bu la yàlla naree musal de dañ naan ba doon ba loolu xew foofu nekku fa walla bés boobu diw sangam ñëwu fa walla ñëw fa bedem loolu xew moo boo bañee ñu tudd la ci loolee lala yonent bi wax ne loolu moy sababu mucc na la sa dëkkuwaay doon yaatuwaay na nga loolu xool ba xam dinga nga mucc wala doo mucc ñetteel bi yonent bi daal dénk uqbata bun aamir radiyallahu anhu mu ne ko wabki ala xatiatik na nga dugg sa ruq nga toog di joy say bakkaar loolu dina la doy problème dina la doy pour nga mucc ey man sama bàkkaar yi ma def waaye man lii ma def nii ci bàkkaar nu ma ko mënee waaw man ana la moo ma yóbbu ba ma jëf bàkkaar ji loolu boo koy xalaat doo fi nekk di boyal sa làmmiñ ci nit ñi lii bu dee yaa ngi koy xelaat doo fi nekk di nàmm sa tànk fu ne nga ne fa lu ne nga dugg ko loolu doo ko tal toog di xelaat say bakkaar ba xam yàlla dina la ko jéggal wala du la ko jiggal fekk yaa ngi xelaat lii loolu dina la doy la nga xamante ne mooy bàkkaar moo tax mu ne ko wabu ki nanga nga toog dugg sa ruq mën a kenn waaw nanga nga dugg sa ruq nga xelaat toog di joy say bakkaar moo tax mu ne ko wabu kii na toog di jooy ala xati atika sa bàkkaar ya nga rëccale fekk yaa ngi toog di ko jooy amaana loolu dina la doy problème loolu dina la doy su ko defee bu dee épargne nga ñett ñi nga di ko installé di ko dund sa dund nga sa sa làmmiñ lu ne bu ko wax nga daal di gàtt tànk bul boyal sa tànk fu ne nga dugg fu fu ne nga dem ngay taxawaalu nga dindi loolu say programme boo demee bay génn nala la a génne bu dee toog nga sa ruq ngay xelaat say bàkkaar doo tal di wax ci nit ñi doo tal a génn xelaat boobu ngay xelaat ba xam yàlla dina la jéggal say bàkkaar wala déet loolu dina la doy problème ba tax na képp ku salloo ñetti melokaan ya yonentu bi jox uqbata bun amir comme dénkaane képp ku ko installe sa dundu amaana yàlla dina la xéwalal nga mucc yal ko buur yàlla yombalal amin ya rabbal alamin mbokk yi yan na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yéen a ngi fàttali ko ba léegi ñu ngi wéyandi ki yéen ci waxtaanu fajar fii ci Rewmi FM 97.5 ñu ngi ànd suñu tem ba nga xamante ne moom la ñu tàmbali woon te mooy amalu saalix amalu saalix nag ñu ne mooy jëf ju baax amalu saalix ñu ne mooy jëf ba yàlla reconnaître fa moom mu digal ko képp kuy doomu aadama rawatina yow mi di julit bu ñu demee xool ci alquran ba yàlla wàccel suñu yonent bi mu nekk suñu katalog fii ci kër àddina moo di ñu niital ana nu ñuy doxee ak fu ñuy doxee ak nañ fay doxee su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko jàngal di ñu ko won nañuy appliquer catalogue boobu di alquran saar ba fa nekk mu nekk suratu ruum bu ñu demee xool dinañ fa gis buur yàlla di ñu wax ne njëriñu jëf ju baax namuy njëriñ ki ka nekkee di ko jëf ba tax na yàlla ne man kafara fa alayhi kufruhu wa man amila saalihan fa li anfusihim yamhaduun mbokk yi bur yàlla nee na yama defal doomu aadama ci xéewal ya tukkeeko fa man yàlla képp weddi ah xamal ne weddi boobu nga weddi daal yow la concerné bu may mbugal képp ku weddi sama xéewal la defal ki ko weddi moom la ñuy mbugal moo war a mën a subir mbugal bañ koy mbugal waaw képp ku weddi xéewal bala yàlla defal nga salfaañe xéewal boobu def ko mbewte nga fuy yëg sa bopp bañ a faale yàlla ci xéewal yam la defal yàlla ne keroog bés bu ñu dajee bu may duma ah <laughs> yow lay duma de yow mu weddi sama xéewal jooju waaye nag xamal ne tamit wa man amila saalihan képp ku jëf lu baax fali anfusihim yamhaduun boppam la ko jiitalal mu def ko laltaayam keroog buñ ko tërari ci tëraayu bàmmel ba muy njëkk wàcc ci kërum alaxira kon ndegem bàmmel mooy kër gu njëkk ba doomu aadama bi di wàcc ci péncum alaxira yàlla nee na képp ku jëf-jëf ju baax ah xamal ne fali anfusihim yamhaduun boppam la ko jiitalal mu def ko laltaay bu njëkk ba nga xamante ne da koy fekk keroog tiraayu bàmmelam mbokk yi diggante man kafara ak waman amila saalihan commentaire ya fay jaar toujours komanteeru man amila saalihan mooy gën a yaatu ndax moom lay yàlla accepté moom la yàlla bëgg ba tax na commentaire man amila saaliha mooy gën a ubb mooy gën a gudd mooy gën a ëpp commentaire man kafara wala wa man asaa gis ngeen commentaire man kafara dafa gàtt lool man kafara fa alayhi kufruhu point yàlla ne képp ku salfaañi xéewal ba ma la nga wuutale ko weddi yàlla weddi njëkk yàlla may la wérgu yaram nga jël wérgu yaram bi di ko caaxaane yàlla may la alal nga jël alal bi di ko moye yàlla yàlla may la xel bu sell nga jël xel bi di ko foowe di ko defe loo xamante ne nit ñi war nañ war nañ see mën a njariñu waaye nga jël sa xel bu sell bi di ko jëfandikoo ci li nga xamante ne doo ci njëriñu ña lay seetaan ña lay xool ña lay déglu duñ ci njëriñu loolu xeetu weddi yàlla la yàlla nee na képp ku ma xéewalal xéewal nga daal ko wuutale weddi yàlla keroog duma duma kenn ku dut yow mi jël sama xéewal soppi ko def ko mooy yàlla waaye nag waman amila saalihan képp ko jëf lu baax fali anfusihim yamhaduun xamal ne boppam la ko jiitalal mu doon tiraayu bammel yamuy njëkk tëdd lam fa jiital mooy lu baax loolu moo tax mu ne fali anfusihim xamal ne boppam la defal yamhaduun njiitlaay bi nga xamante ne jiital na ko ci jëf ju baax waaw kafara képp ku weddi xéewal bala yàlla defal fa alayhi weddi boobu daal bu ñuy dumm képp ku ñu war a duma ëllëg bés bu ñuy pinir képp ku ñu war a pinir ëllëg du doon kenn ku dul ku weddi xéewalu yàlla kon nga déggee ci ne bala yàlla defalee xéewal nanga ka way waaye boo ko weddee tamit ah bu ñuy pinir nit ki de du doon kenn ku dul ku weddi xéwalu yàlla boobu moo tax mu ne wa man amila saalihan képp ku jëf lu baax fa li anfusihim yamhaduun xamal ne jiital nga sa bopp sa tiraayu bàmmel keroog jëf ju baax jàng defoon waaw jëf ju baax ba nga jëfoon daal xamal ne yaa ko jiitalal sa bopp mu doon la nga war a fekk sa tiraayu bu njëkk keroog ba nga génnee àddina ah njiitlaay bi daal ah yaa ko créel sa bopp yaa ko placel sa bopp yaa ko épargnel sa bopp kon ndegem yàlla nee na képp ku weddi njëkk bi ma la defal xéewal bi ma defal sa bopp la yow la concerné bu ñuy duma nit ki duñu duma kenn ku dul ku weddi xéewalu yàlla waaye nag waman amila saalihan képp ku def lu baax nga sellal ko yàlla rek tax nga def ko yalla ne xamal ne fali anfusihim yamhaduun xamal ne sa bopp nga jiitalal lu baax loolu nga fekk nga war a fekk sa tiraay waaw tiraayu bàmmel de xamal ne keroog lala la fay fekk lu njëkk mooy amalu saalix ba nga jiitalal sa bopp moo tax yow julit bi bul xeeb ci lu baax dara yonent bi wax na la ko ci maana xadis bul xeeb ci mbaax dara bul xeeb ci njekk dara ndax xamuloo ban jëf la yàlla di sopp ci sa jifi mu nangu ko ba mu la tàbbil ci kiiru xéewal ba nekk fa moom kon muy yow muy man muy mboolem mbokk auditeurs yi fii mashaariqil ardi wa maghaaribiha ngallawaay fu waay mën a nekk bu ñu xeeb ci njekk dara lépp luy lu baax lu mu tuuti tuuti tuuti nañ ci sóobu takk ci rib waaw kañ jëf ju baax daal loolu mooy la jara takk leneen lu dul jëf ju baax boo ci taqee tamit loolu leneen la amalu saale mooy la jar nit ki taq ci rib ñu ne la lii jëf ju baax la jëf ji de la yàlla reconnaître la la yonent bi bëgg la nu tuuti tuuti tuuti wallahi nanga koy installé ci sa dund lu mel ni tabassuma li aqiqal muslim sadaqa ñu nga siiñ sourire nga daal di reetaan dimbali ko ci sa mbokku julit ñu ne loolu sarax ba sa xar kanam bi faggu la sarax ba sa xar kanam bi crée la kon koo dajal nang ko siiñal nang ko bégee muuñal nanga suuril jëmale ci sa xar kanamu mbokku julit sa xar kanam bi daal di créer sarax bañ lay épargnel ci amalu saale lii jafewul kon bu ne la amalu saale bul ci xeeb dara nang ci géem a góor-góorlu sa kémtalay kattan nga taxawee ko mbokk yi yàlla ñu yàlla may dégg ak topp jaalana allahu wa iyaakum min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ndax ñu war a joxe xibaar ñoo ngi nii taxaw ñu fas yéene leen jébbal béréb bi ñu ñaan yàlla suñu boroom mu may ñu dégg ak topp